koy jaajëfal bu baax a baax euh, Kona activiste lutteur ah moom mu doon ku baax ku am yitte euh, Kona ñu bàyyi la nga nuyoo. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu di nuyu téléspectateur wala internautes yi ñuy teewlu ci Sénégal ak bitim réew di nuyu waa bi ma jóge di nuyu ñëpp ku lim di wax yàlla bu ñu fi wax lu ñuy xeebee. Mm-hmm. Euh, di fàttali ni nag mën ñu ñu suivre ci solution info TV ah bu baax a baax na gars yi gën di aimé mais aussi tamit kër yi di daw mais aussi abonnement yi tamit gars yi di partagé gars yi daal lépp lu mu laaj nañ ko def ngir jàpp ci komba bi. waaw di ñaan tamit sponsor yi gën a wuy si mais Kona euh, mbër Kona activiste lan moo dugal ci activisme mbër nga ba léegi wala làmb jee doxatul. non mm, je pense que ñun mbër lañu ah parce que comme suñuy âge jeexagul te aussi tamit jubilé wuñu kon jàpp nañ ni ay mbër lañ ba tey. Mhm. donte nag gëj nañu am combat depuis 2017. donc lañ gëj a bëre donc mais nag loolu peut-être yàqul dara parce que gis nañ fi ay yoo xamante ni demoon nañ sax ba nekk moodu moodu am na benn ku ngeen fi dalaloon demoon na ba nekk moodu moodu daanaka plus de sept ans donc mhm. mais ñëwaat na teewul manqué na waat retour am donc nag ñun nag li ñu tee bëri du suñu coobare xëy na peut-être dañu amul combat wala peut-être taxawaay bi ñu am moo tax mais daal loolu la mais activisme moom pour man ñun ñëpp ay activistes lañ. bu fekkee ni wax lu baax ci dëkk bi bu fekkee taxaw sa dëkk bu nekkee porteur de voix nekk la voix des sans voix. jàpp naa ne kon ñun ñëpp tey toog ci plateau bi ay activistes lañ. kon nag je pense que loolu rek moo ñu ci dugal di intéressé wu suñu réew nu muy doxee. di ci focus di ci wax suñu xalaat. Mhm. léegi làmb ji lan la dala cee bund xatal wala da nga aayu. non je ne sais pas bu fekkee ni da nga aayul je pense que ku am sept combats am six victoire am benn défaite je pense que kooku am na palmarès quoi. te ci am nga tur. waa yàlla dimbali nañu am nañu mbooloo aussi am nañ tur mais nag. Ah. xaw ma fan yii rek amoon na benn promoteur bu ne woon daf may tëgg mais boobu ba tey donc du coup ñun ñoo ngi ci daal ñoo ngi si lu ñu war a nekk. et aussi tamit bi nga amoon ak CNG. waaw mën na nekk parce que déjà euh, millier làmb dafa baaxoo baaxoowuñ kuy révolté wu quoi kuy wax xalaatam baaxoowul loolu depuis boo xoolee yéen a ngi suivre depuis bés làmb dee làmb ba tey mosoo leen gis mbër mu mel ni man loolu mosul am di génn di wax xalaatam si penc mi di wax xalaatam ci gestion wu CNG di wax xalaatam ci manager yi conflit d'intérêt bi am lobby yi nekk ci biir làmb te jaaduwul raket bu ñuy racket alalu mbër yi ñàkk doxalin bu baax ci biir làmb ma di ko wax ba génn ci làmb ñëw ba ci vie sociale bi nga xam ne réew mi nu muy doxee di jox sama xalaat donc baaxuñu woon di ko gis. te Sénégalais dafa gaaw ci loolu naqari ci réew mi. Sénégal dafa Sénégalais dafa gaaw ci dinañ ko wan moom mooy kan dinañ ko def nii dinañ ko def nii xam nga Sénégalais dafa gaaw ci loolu dinañ la koñe quoi. Mm-hmm. Sénégal moo gaaw ci loolu maanaam sooy wax dëgg wala wa ngay wax li nga xalaat rek kenn ku ne côté bi mu la mën a koñee da koy def mën na am tamit loolu la parce que avant may nekk di wax lii maa ngi doon bëre nice xam nga bokkoon naa ci ñi gënoon am yaakaar ci génération bi ma bi ma génn. écurie bi ma nekk aussi bokkoon naa ci ñi gën a am yaakaar mais nag bi ma ko defee it sama mag bu góor wax na ma ko capitaine PK moo ma dugal sax ci bëre ndax moom moo moo ñu daanaka moom. lañ ñu Pape Konaté ah Pape Konaté waaw. Mm-hmm. ñoo bokk ndey ak baay. Mm-hmm. bi ma njëkkee génn dénoncé en 2017 ma jugee ci combat daan. Euh, le 9 avril 2017 jour combat ne Sa Thiès mm-hmm. man maa bëree spécial bi ki ma mujjee bëreel dama ko daan ba damm ko Sangomar bu grand mbooloo fii la dëkk. donc ma war a jóge foofu bëre grand combat. mais ma gis injustice yi taxarnaat yi dafa am nit yoo xam ni yàlla bindu leen mënuma muñ injustice quoi man yàlla moo ma bindee noonu xëy na peut-être bëggoon naa mel neneen. mais c'est plus fort que moi nul n'est le maître de son destin. peut-être mënoon bëggoon naa mel neneen mais mënuma ko parce que yàlla lii la bind si man quoi mooy sama destin. mooy que injustice bu ko gis dama koy xeex ma gis ni CNG bi Alioune Sarr mu ngi fi nekk depuis. 1980 xaw ma 87 xaw ma 92. 92 nga xam ne man boobu daanaka boobu maa ngi raam. isim rek ba ma màgg bay bëree moom mu continuer nekk président wu CNG boole kook nag arrogance ak dictature bu metti napp monde làmb yëpp su waxee mbër yi dañuy wax sa naan maa ngi gërëm sam papa dëgg sax duñ ko ñemee wax recours képp da ngay fay 25000 francs maanaam da ngay bëree ba pare nga daanu wala nga daan arbitre juum jox keneen victoire. léegi yow pour nga am sa victoire boobu da ngay fay vingt cinq mille francs te boo boo amee pour nga am justice quoi xam nga yow dañu la tooñ. Mhm. nga jàpp ne yow dañu la tooñ léegi yow il faut nga fay vingt cinq mille pour ñu war la yaa tooñ wala tooñoo te même boo amee ndam vingt cinq mille boobu duñ la ko delloo mais loolu sàcc la amul neneen luñ ko mën a tuddee lu dul racket mais on dit sous choses telles qu'elles loolu c'est du vol beneen bi aussi. mbër mi kat bëri na dagg nga ko assurance ci licence dagg nga ko assurance ci cachet cachet bi mu bëri te bu feebaree doo ko faj mais loolu sàcc la nan lañ ko mën a tuddee léegi loolu noonu nga wax ko ñu ne kii dafa reew dinañ ko war ñoom mooy kan dinañ ko war nangam di la woo di la tëkku xam nga xëy na peut-être loolu moo tax ñun bëriwuñ mais dañ ñu doon jéema a dañu doon jéem a noppiloo mais yàlla dogal na tey la suñu wax gën a def effet xëy na dañu yaakaaroon na suñu pinee daan bareetuñu diaboliser ñu dinañ noppi suñu wala suñu wax dootul am impact mais tey la suñu wax gën a am effet tey la nit ñi gën a may nopp moo tax doomu aadama su nekkee ci dëgg jaru nga koy jéem a bundu xatal wala nga koy jéem réduir en néant pour lan pour dynamique bi mu nekk bu bañ a dem dëgg yàlla moo ko moom te képp ku koy prôné yàlla moo lay teel boppam xëy na nag nga ragal. mais soo ñemee rek yàlla da lay fekk si. te ñun yàlla conviction boobu lañu am moo tax tey ñu ñu doon jéem a nuyur wala dañu jéem a suul ndax ñoo ngi wax dëgg pour suñu wax ba ñu jóg ci kaw ñuy man dañ na ko ba ay plateau làmb dem nañ ba dootuñ ma invité duñ ma invité plateau làmb duñ ma tëggal làmb am dañ ma dañ ma zappé quoi. mais teewul tey laa gën a mën a wax tey la sama wax gën a am impact léegi ma jox sa Kona macha allah mais man dama jàpp ni Kona est-ce que yow tamit nekkul ni yaa tooñ. parce que boo demee ci monde boo xam ne dañ ne bu kenn xalaat nga bëgg faa xalaat est-ce que du yow yaa indil sa bopp ay jafe-jafe. waaw loolu moom saa ku ci xuloog yow tooñ la. Hmm. loolu jàpp naa ne man maa tooñ. parce que ni nga ko waxee bu fekkee noonu rek lañ ko mën a analyser maa tooñ mais man de wax dëgg yàlla dama jàpp ni. nit ki boo ko yilif parce que man damaa gis ni mbër yi nga xamante ni bi promoteur day ñëw tëgg la ba noppi di ci gañe xaalis. mais mbër mi day mel ni da koy jaamu quoi sama papa sama kii sama laa sama lële comprendre te mbër mi moo tax promoteur bi nekk mais mbër mi moom xalaatut loolu léegi yow nga nekk ci monde boobu ba noppi di réfléchir est-ce que loolu laa njëkk a dénoncé waaw maanaam nawlantewuñu ak mbër yi mhm. te nag ude nu mu la gisee la lay ëwalee ponkal mu am cent cinquante kilos mhm. wayadi mhm. ba ko am 33 kilos di ko manipuler <laughs> loolu moom la moom la léegi nag baaxoowuñ gis <laughs> ki ki naan man nii laa xalaatee ah. baaxoowuñ ko gis Sandiog li mu wax c'est très important mm-hmm. mooy que man benn côté damaa tooñ sama bopp mm-hmm. parce que milieu bi ma nekk dafa am nu fa nu ñu fay nekkee mm-hmm. man ma ñëw ne man damay maanaam damay tekki jéng yi xat fakka kab la bi Serigne Touba waxoon non Tyson sax ci boppam la nekkoon mooy may wax ak yow Tyson musul révolté wu pour la cause euh, de la cause des faibles wala pour l'intérêt général sa Tyson heure boo ko gisee mu exprimer wu c'est pour ses intérêts crypto bi mu fi nekkee di révolté wu dañ koo daggoon aj ko aj ko kii ko ba mu ci kii loolu moo taxoon mu génn di wax mais après bañ ko intégré CNG après moom bokkoon na fi sax CNG wu Alioune Sarr bi ñu doon xeex Tyson demoon na ba bokk ci CNG boobu kon man waxuma koo xam ne dafay wax parce que dañ koo laal dañoo dañoo dañoo menacé ay intérêt mhm. man ko naa damaa wax parce que damaa wax pour waxal la voix des sans mooy que ma am na mbër yu mag yoo xam ne xëy na man fit bu ma am amuñu ko man pourtant la dëgër laa doon xeexal la degee Guiers lañ dagg 7 looloo déclenché sama sama combat sama révolution Lac de Guiers lañ dagg 7 millions 40 mille ci benn combat. waaw mm-hmm. loolu bari mille francs ci combat boo xam ne matul une heure de temps. Mm-hmm. bëri ba bëri 18 heures nga ñëw ci combat bi 21 heures ñëpp ñibbi nañ diggante ba ban infraction la ci nit mën a def bañ dagg 7 millions 40 mille am. <laughs> boole ko aj ko aussi. Mm-hmm. mais comme ay yambar lañ. comme ni ko kii saa wax dañuy wax noo ñu ngi ñaan yàlla baax na sa di wax waxu dof mais ma génne leen mii c'est inadmissible lii lii lii lii lii lii dictature la lii sàcc la. Mhm. parce que 7 millions 40 mille mënuñu ko dagg nit ci benn combat. loolu moo indi révolution bi sama mag bi woo ma Pape Konaté ne ma boroom néegu ñax du taal daay. Mhm. kon a yàq nga sa carrière. Mhm. ma ne ko lu tax mu ne ma dëgg li nga wax àddina ñëpp xam nañu dëgg la. mais ñu la ñu la ëpp sut la nekk ci làmb ñeme wuñ ko wax nga wax ko. tu as brisé carrière. ma def kaf mu def dëgg te pourtant l'histoire lui a donne raison. mais est-ce que tey jii ku mel na yow leader d'opinion nga maanaam jàpp nga ni wax ji warul doon rek ci yow mais Sénégal wax ma làmb damay génn làmb man déggoon nañ fi temps yi Siteu déggoon nañ fi ñeneen ak ñeneen mais leader opinion yi bu ñu toogee ci média nii muy waykat di Wally Seck wala keneen ku mënti doon boo leen laajee ci ñi réew mi doxee ñoom ñëpp daan naan du ma politique duñ ci nangoo wax. yow nga nekk un leader d'opinion gis-gis boobu nga gis ni te ñoom li ñu doon askan wi ñoo leen ko def mais duñ waxal askan wi pour yow lan moo indi woon loolu. waaw loolu mooy mooy hypocrisie bi mi nga xam ne moom laay xeex man loolu c'est de l'hypocrisie parce que kay xamal la tey. Hmm. leader d'opinion ñu tax nga doon ko ñan ñooy ñoo bi. askan bi askan bi te ñooñu ñoo tax nga doon li nga doon tey ñu tey ñooy feesal say stade mais il ne faut pas être dans la vie ñooñu seen bopp kese la ñuy xalaat seen intérêt personnel. malheureusement les gens qui les suivent duñ leen comprendre comment tu peux nga nekk porteur de voix te mënoo wax pour la cause des faibles non kon sa porteur de voix amul sens parce que celui qui ne dit rien consent soo nee ni réew mi di doxee awma ci kàddu et puis dañuy def la mel il faut faire la part des choses mooy que ñu def différence ci kii wax ci politique ak kii politique c' tellement important parce que man des fois les gens me taxent de politicien et je ne suis ma nekkoon politicien l' man man ku ne xam na ne xanaa lu ko naa loo xam-xam xam nga ni kon a am fit la ci li muy def man su ma nekkoon politicien bokk ci parti je l'assume mais j'ai pas besoin d'être un politicien pour wax li xew ci réew mi wala pour wax lu dox ci réew mi wala lu doxul ci réew mi des fois les gens nous taxent de politiciens pour nous freiner lan moo nekk ci politique la politique c'est l'art de bien gérer la cité tey su fekkoon damay politique je l'assumerai su fekkoon damaa bokk parti damay koy assumer mais benn mouvement laa bokk muy frappe te ba ma ci bokkee yàggul dama génn di xeex dëgg te yàlla tax j'ai pas besoin de euh, bokk ci benn parti politique pour wax sama xalaat ci penc bi léegi nag ñooñu noonu tey taxaw ne ay leader d'opinion lañ du ñu wax pour l'intérêt général mais ñooñu ban opinion lañu nekk seen leader le comme son nom l'indique leader d'opinion l'opinion c'est le peuple kon yow munoo ne man opinion bi man maay leader bi te du ma wax parce que sama kàddu egg na fu seen kàddu yeggul te du wax pour ñoom amul importance responsabilité askan wi. parce nga xam li ngay jaay sa bopp. responsabilité askan wi. mooy ñoom ñu yeewu. parce que munoo ne man politicien la mais juste damay wax pour samay intérêt su fekkee troisième mandat moo gën ci samay intérêt na ñëpp dee mais un troisième mandat day am man mbër laa su fekkee ne man parti au pouvoir na rey ñëpp mais comme maa ngi gis sama bopp ci moom mais anyway loolu c'est daal c'est de la lâcheté te ñun loolu la ñuy loolu la ñuy dénoncer ñoom ku nekk am nga droit nga nekk ci sa ruq di dund lu la neex mais tamit ku ko def ku ko wax lay wër. Euh, du est-ce tamit dëgg gii nga nekk nii di ci di ci dox xam te nit ñi am na loo xam ne hypocrite def est-ce que nga nekk moo tax lu bari yàqut say say affaire mu di mbër mbër yi xam nga intellectuel yow intellectuel nga ni la déggee nii nga wax am na ñoo xam ne bariwu ci xanaa yàq si te lay doon ak xëy na ak ñeneen ñoo xam ne xawma leen mais nii ngay defee nii est-ce que tamit du moom moo yàq sa carrière ci làmb ci non man nag ya dara yàquwul si man. man ni may gisee nii je me plus à l'aise ba mu nekkee di mbëre sax ak léegi léegi la ma nit ñi gën a léegi laa gën am yàlla mu may gën a sutural waaw moom laa làmb du dara nag bañ may bind nag c'était pas pour la lutte seulement. Mhm. c'était un destin ma jaar ci. mais nekkul ko ba ma yàlla di créer dafa ne non konaa mbër rek la war a doon bu doonul mbër du doon leneen. Mhm. moo tax les gens des fois il ma dañ may bëgg a dañ a ruube naan ma demal nga bëre ji comme si que euh, su ma bërewul waruma wax sama xalaat. Mhm. xam nga demal nga bëre ji ku fi ñëwoon mook Assane Mese yàgg Assane Mesere waa ji ne woon dina la tëggal combat waa ji fu mu toll. Jamaïcain waaw Jamaïcain boobu laa gëj a dégg. bàyyi li nga ak li mu ci wax baax na. yàlla na jullit yëpp dugg àjjana ba dugg safara keroog laa ko gëj a dégg. te ah? pourtant waxoon naa ko. Ah, keroog laa keroog laa ko gëj keroog laa ko gëj a dégg laa. Ah, keroog sooy bi rek waa na ko sax lu nekkoon intention moom. nee naa déggoo lu ma la maanaam ñoom dama leen di mm. déranger man mi leen làmb damay déranger. Mm. parce li may def dafay wane ni ñoom nekkuñ ci dëgg. dëgg la waaw moo tax ma wax la loolu. moo tax dañ may dañ may fan yii rek la fi benn mbër boo xam dafa génn di ma jaxase kilifa diine yi. waaw te joteewu ma moom dara. te pourtant sama xarit la. non c'est pas la peine c'est pas important c'est pas important hmm? c'est pas important parce que je wax yow la tudd. waaw je d'importance. je juste damay jox exemple rek sax moo tax ma indi loolu. pour wax la ni damay déranger bi may wax. moom laa bëgg wax du dëgg aussi tamit. waaw xaaral waaw ci laa nekk nii ok mais Assane maa ngi ñëw maanaam pour expliquer. Mm-hmm. li tax ma ni damay déranger moo tax ma indi loolu mais c'est pas sa personne qui m'intéresse. waaw dama ne man damay déranger ci milieu làmb boo xoolee ñi may attaqué ñu bëri milieu làmb lañ nekk parce que kuy aj day bañ ko seenu kaw te dafa am lobby boo xam ne ñoo ngi dund ci làmb au détriment de lutteurs mbër yi mbër dëggantaan. dunduñu barki démb Ndiaye teguñu fi Pawlish may ak ak ak ak ak ak ak Ngankou ci spécial. ba Pawlish Mbaye moo tax toog waxal boppam ne waa làmb dañoo manqué ba mel ni ñett yu fukk di séddoo. man nga xam ne du mbër man nga xam ne du ma mbër entraîné wu ma mbër yi nekk fi di entraîné sonn ba dee ñu may jox spécial di ma fay xaalis mooy bëri ci kaw mbër yooyu mais il a la vérité ma dégg ñu naan dañ ko ci critiquer mel ni yéen yéen a yabaate. pourquoi s'acharner sur la personne de Pawlish Mbaye pourtant il n'a qu'à dire il n'a seulement dit la vérité. dëgg kese la wax. te avant ama ko doon wax mais fu ne toog naa wax ko. ma ne leen favoritisme ak deux poids deux mesures bi am ci làmb ak li nga xamante ni moom mooy xoola nasaxal maanaam déséquilibré maanaam désacralisé mooy mbër mi tey dañu waroon fexe ba mbër mi muy am muy am ñu koy koy teg ci ay normes yoo xam ne moom day bëgg a mais munoo nekk di entraîner chaque jour ñu dem jëli koo xam ne comédie lay def Pawlish Mbaye ak ñànku lan lañ mën a yokk ci ambiance su làmb. dara mënuñu ko yokk am na mbër yoo xam ne tey. Mm. saf nañ xorom bëri nañ bayre mën neex nañu mën nañoo wax comme mën nañoo comédie mën nañoo bëre mais pourquoi prendre des comédiens à la place des lutteurs surtout nag spécial. nga xam ne spécial bu njëkk ñëpp moom mbër yu ndaw yi moom lañ doon rêvé bëre ndax soo bëree spécial ak après grand combat nga jëm. man spécial laa mujjee bëre. su du woon révolution ba nekk bi ma nekk nii instant yi maa ngi nekk. ci grand combat léegi mayal la. macha ah. euh, allah. Mm peut am ñoo xam ne ñoo la fa jiitu defuñ ko tey nga ñëw am courage def ko man dama naan yaa nekk si dëgg mm-hmm. parce que nag lépp loo gis euh, dëgg moo ko lal te dëgg mooy njëkk dëgg mooy mucc fi nga teg sa tànk noonu la mais pour nga accomplir mission bi nga xam ne yaa ngi ci tey jii est-ce que yaa ngi jéem mooy li la koy may mooy nga jéem a fexe ba euh, ñi nga xam ne ñooy mbër yi nga nekkal fexe ba convaincre leen bañ la fekk ci dëgg boobu amaana ñoom ñëpp buñ buñ mànkoowee ñoom dinañ dem ba xam ne yéen a si dëgg yéen a nekk si dëgg te dinañ leen si fekk parce que sans yéen ñoom duñ liggéey est-ce que yaa ngi ci jéem a def ay jéego pour waxtaan ak sa mbëri jéem leen a convaincre ñu fekk si la si loolu si ñu ngi ci loolu ndax milieu lamb ma nekk milieu bu hypocrite mm. non man les choses telles qu'elles sont dafa am dafa nekk milieu bu hypocrite ndax man association euh, lutteur en activité laa nekkoon uh-huh. man musuma ko ci association dama jékki-jékki rek nekk benn bomb bu explosé 2017 dama dem lu tuivi rek def déclaration boobu xam nga ko dégg-dëgg ak tamit loo xam ni nit ñi xam nañ ko mais ñeme wuñ ko woon wax ñu gis benn jeune bu ñëw explosé bombe bi léegi nag ñëpp dañu ne mais kii mooy kan. te boobu amu woon sax kenn bu te xamuñu ma woon wala bàyyiwuñu ma woon xel ñu ne mais kii mooy mais kii ce qu'il dit mais lii mooy mais kii est-ce que c'est li mm-hmm. ñu commencé di jege man. association sama papa Tafa moo ma ñëw jël dugal ma ci association des lutteurs en activité ma nekk le plus jeune ci ci ci association musuma am comme âge sama âge bokk ci association boobu boobu Khadim Gadiaga moo nekk président moo nekk président bi boobu ma Tafa Gueye bàyyi na làmb mu ne leen kii lépp lu ngeen di def de leen ko ci boole. Gris Bordeaux il m'a appelé par téléphone dama booy li nga wax nii ñun ñoo ko waroon a wax. li nga wax nii ñun ñoo ko waroon te bis ni ki tey maa ngi sa ginnaaw. man maa tax Gris Bordeaux taxaw jàkkaarloog CNG ne il faut qu'il dégage CNG ay sàcc lañu ba CNG bi convoqué ko war koo aj ma def une forte mobilisation ñu dem buntu CNG jour boobu ne bu ngeen ajee Gris ajaale ñu ñun ñëpp loolu moo tax Gris Bordeaux kenn aju ko moo tax seul la xaaral foofu laa nekk kii question si naa ma ci question am laa nekk nii moo tax may faral di wax seul la lutte libère Gris Bordeaux tey loolu moo tax ba tey kenn aju ko mais après Ba ñu nekk ci benn combat bind mémorandum mu 10 points pour lépp lu doxul ci réew mi ñu ne ñu ci làmb ñu ne làmb li ko teree dox lii la mooy conflit d'intérêt le manager dafay nekk manager mbër ba pare mais dafay nekk en même temps agent au promoteur loolu conflit d'intérêt la loolu mënul dem parce que tu ne peux pas défendre deux intérêts à ñu ne un ménager qui ne sax pas liir ni écrire un ménager ki ne peut pas discuter un contrat mooy indi problème ndax des fois mu signé loo xam ne xamu ko après ñu am ay contentieux judiciaire ak plus de plusieurs points yoo xam ne pour làmb baax la xaar. comme yaa ngi frappe yaa ngi frappe. non xaar ma ma daaneel fii. pour c'est bien may ma rek c'est-à-dire que a temps aussi li ñu liggéey aussi bu ñu jëlee lépp jox ko làmb ji rek pour man émission bi day des. Mm. parce que da nga bàyyi làmb ji léegi yematoo rek kii di kaasal làmb ji mais da nga dugg ci yeneen point ci actualité bi ñu bari jàpp ni yow da nga ñëw pour euh, si sa biir wax bu ñu naan da ngay politique da ngay défendre Sonko mais aussi di dal ci nguur gi lu bari. lan ngay reprocher nguuru Sénégal ba tax waxuma côté làmb mais ci doxalinu réew mi. waa xam nga Seydina Omar kii li ma laaj. Hmm. importance bi mu am la. xam ne da nga am problème temps temps bu jeexee danañ la arrêté. waaw daf ma laaj ne ma daf ma daf ma laaj ma ndax. Ah. ndax yaa ngi sensibiliser sa mbokku mbëri pour que euh, communication bi ak lii ñu xam lan moo xew. Hmm. mooy ñun def nañ ci ay jéego foofu jéego yooyu laa ko doon wax mais malheureusement les élites après ñoom ñooy tas mbooloo bi par xaalis ku mel ni Matar ba tey. bañ jógee ba am dynamique boobu dafa dugal xaalis si biir ànd bi ànd bi yàqu comprendre nga man mii tey ma génn ci foofu nekk di kaas di kaas di kaas di dalaat ci kaw Gris Bordeaux te pourtant maa ko maa ko maa waxoon nañ ko fal man lañ proposé woon ma ni non non Gris Bordeaux il a le bon profil parce que CNG dañ ko doon xas naan ñun ay xaarim gañe dañ ko doon xas naan non mbër mu mbër politicien la mbër mu ndaw la mais Gris Bordeaux VIP la bu ñu ko falee dina am benn autorité bu mu am xëy na CNG dina nangoo wax ak moom après dafa amaat beneen affaire bu am bu éclatement am kon jour ñu ngi def ay jéego pour naka la mbëri di yeewoo naka la seen intérêt mbër aussi di xamee ni wax dëgg wala révolté wu du tee nga am sa wërsëg kon ñun chaque jour ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi def loolu mais nag li li ne ñun xëy na ñu xëy xëy rek imposer ko nit ñi mais nag petit à petit l'oiseau fait son actuellement y a beaucoup de lutteurs yu commencé di conscientiser wu yu commencé di comprendre yu commencé di focus ci li nga xam ne mooy seen réew ni muy doxee. waaw. man damay ñëw ci euh, euh, defe naa déglu euh, discours président parce que bu ñu jógee ci côté làmb ji. ñu ñëw aussi tamit ci côté. politique dégg nga président kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko fële bi mu demee ci kii nee na dootu nangu du nangu ñu ñu fi indil beneen diine noo jàngatee waxu président. c'est que man président damaa yaakaar ni gémmiñ ko jàpp. Hmm. Macky Sall la muy cat. Hmm. parce que je pense que yenn yi cat la daal. parce que ay débat de bas étage lay wax. Hmm. débat yoo xamante ni maanaam maanaam autorité wu président de la république. warul focus ci loolu. ba pare mu nekk wax boo xam ni kenn mënu ko décortiquer ban diine lu xew. non diine bees quoi. ban diine bu lu xew ban diine bu bees moo fi am lu xew. qu'est-ce qui maanaam lan moo motivé du ñàkk daa yëg daa yëg lu ñu yëgul. du ñàkk ni daa yëg lu ñu yëgul. Hmm? Hmm. waaw léegi na ko wax kon ñu ñu ñu comprendre. Hmm. boo bëggee boo yëgee lu ñu yëgul da nga naan man kat lii laa yëg. ba pare nag ne ah c'est xam nga tey comme par exemple li nga xam ne ñu ngi koy wax naan xam nga boo déggee kilifa diine léegi ku jóg léegi ñu ci bari dañuy wax naan saaga yi ci kii beeg. et cetera internet bi. maanaam ñoom dafa mel ni dafa am foo xam ne fa lañu jëmale saaga yi loolu yëpp bu amee boole ko président wax li noo jàngatee loolu yëpp. waaw mais xam nga ay saaga ak diina ju bees. bokkul bokkul non diine ju bees ji <laughs> moom daf cee ñëwaale waaye aussi tamit saaga yi nga xam ne gaa yaa ngi koy wax. waaw hmm. saaga. ak diine ju bees mais am na amul sax amuñu rapport. Hmm. te Macky Sall le président de la République dafa ne fii kenn du ñu fi indil diine ju bees. diine ju bees waaw léegi man je ma dëpp. man waxoon na ci saaga yi tamit ci internet bi. léegi saaga non yi moom. Oh. dafa war a wax saagante yi. saagante yi. Hmm. saagante moo am te sax kaay ma xamal la ñi saagawul ñoo ëpp fuuf ñiy saaga. Hmm. mais lu bon moo neex a fësal. lu bon moo neex a wane. li bon moo gaaw a siiw. Sénégal ñi fi baax. ak ñi fi nekk ay gor moo ëpp foofu ñi fi mel neneen mais lu bon moo gaaw a siiw lu bon moom on parle pas du train qui vient à l'heure il ne faut pas valoriser ces minorités yu nga xam ne ñoo ngi ci bitim réew sax di saaga ñu jël ko di ko teg ba le président di ci toog di ci wax loolu amul importance Macky Sall peuple bu yaru la jiite peuple bu am yar la jiite peuple bu am ay teggin la jiite ah nee na xale yi ku leen yarut. waaw buñ génnee ci biti dinañ leen yar. non ñoom déjà. Mm. état dafa am prérogative bu yar déjà moom dafa mel ni xamul ay responsabilités am mm. si si mm. parce que nee naa la débat débat étage lay def comme si que nga yow xamuloo li la war nga dem ba sa biir kër nga toog naan ku fi yarul naa la yar mais yaa war a yare Ah, boo demee ba koy wax de. Hmm. yow borom kër bi yaa war a yare déjà yow boo xamee ses responsabilités waroo toog jàkkaarloog askan wi. un an dese la te sax un an dafa gàtt lool pour yar ci xale parce que xale bu juddoo balaa muy am un an doo ko mën a yaragum da koy ba du tolloogul ci yar. te moom te moom malheureusement. saa malheureusement saa Macky Sall un an moo ko fi dese moom daf ñoo yéex a yar lool. walaay yéex na noo yar. non yàlla yàlla dëgg la bëgg. mais mais mais yéex na noo Kona Kona dama bëgg a ñëw ci yéex na noo yar xam na yaa ngi naan. na def nag Macky Sall. Hmm. troisième euh, maanaam onze mois moo fi dese mais candidature am ba tey jii ñu bari jàpp na ni moom dafa war a ut. ñetteelu candidature dem élection ci jamono jooju am benn candidature boo xam ne dafay lii xel yi mooy bu Ousmane Sonko tax yéen ñëpp ngeen jug di wax d'abord diggante Macky Sall ak Ousmane Sonko nan nga gisee. waaw léegi nag moo ñëw ci ma daaneel ci saalum ma laaj mooy yar bi Macky Sall dafa am prérogative bu yar mooy euh, ñu ne enseignement public ñu ne école euh, privée yooyu yëpp école publique loolu yëpp pour yar askan bi éduquer la. éducation la éducation yar mu ngi ci biir mais malheureusement ñoom ñoo fi bëggoon indi li nga xamante ni mooy programme mu LGBT ci école yi loolu yàggul ñoom daam boo di ko xeex kon moom ban yar la bëgg a wax ban yar daf ñoo bëgg daf ñoo bëgg a imposer li mu bëgg. yar doore quoi. ñu soumettre si loolu. wala wala daf ñoo bëgg a parce que yaa dos yaa non dafa am solo éduquer ak nit ki. ak yar maanaam yar nit ki ak imposer ko li nga bëgg mu nangu ko par force c'est diamétralement opposé que dañuy dañuy jaawale des fois yaru ak yeeru. yeeru yaru ak yeeru. Ah, kan mooy yeeru. parce que Macky Sall ñu ngi ko doon taxé ni dafa yaru. avant muy falu. Hmm. mais est que nekkul da doon yeeru parce que bi mu faloo ba tey discours bu waaw day xaw a xupp askanam da leen di da leen di da leen di wàññi da leen di déstabiliser ci ay waxam day mel ni que moom dafay xuppe. est que du taxawaay bi ngeen yor moom ba ci ba ci message am bii mu def rek dem ba ci laayeen yi nga xam ne ñoom laa paix la ñuy woote ngay xuppe. waaw xam naa ba fa il faut di xuppe. ça ne passe pas c'est révolu parce que dem ba ci laayeen yi nga xam ne la peace and harmony peace and love and harmony la ñuy woote nga nekk fa di xuppe naan ko fi yaruwul kan moo fi yaruwul il faut que il faut ñu xam ne mu am respect ci askan bi ñu am respect ci jeunesse bi ñu bàyyi di insulter ndaw ñi suñu jugee rek ñu ne yaradiku te yaradiku bi ci këram la ëppee oo sein de la palais de la république tey saagakat bu gën a mag ci àddina muy Souleymane Jules Diop moo nga foofu il faut que ñu def ñu bàyyi yàqu ya ñun ay jirim lañ suñu biir réew lu tilim ñu jël ñu ko saaj na ko barki démb Moustapha Cissé Lo moo fi tifaare ay saaga yoo xam ne man ba ma juddoo ba tey ma koo gis. te moom lay àndal. saaga yu xóot Koura Macky. Koura Macky député à l'Assemblée nationale grâce à Macky Sall. kon fan la saaga yi jóge ak fu saaga yi nekk. Ousmane Sonko mi ñu koy askanalee moom rek moo taxaw yëkkati loxoom ne képp kuy saaga ànduma ak yow képp kuy saaga kilifa diina wala koo mënti saaga xaw ma la bugguma laa xam mais Macky Sall il ne l'a jamais dit kon pourquoi ñu bëgg jël saaga yi féetali ko ndaw ñi bëgg jël saaga yi féetali ko opposition bi bëgg jël saaga yi féetali ko Ousmane Sonko ñaaw yaay Sonko nga faral yow non du far dëkk laay wax. bi ma fi toogee ba tey maa ngi wax ci làmb maa ngi wax ci mm. keneen maa ngi wax sur la société mais jamono bi nag ku wax dëgg ñu ne la Sonko nga faral. mais ni muy defee aussi faral Sonko aussi c'est un droit bu ma neexee faral ko anyway. Mm-hmm. ça ne leen nga gis ci moom lu tax mu jar a jàppale pour yow. Ousmane Sonko. dama gis ne fa bëgg Sénégal. comme Macky Sall dama gis ni dañ koy xañ àqam. Mm-hmm. dama gis ni dañ koy tooñ. kese moom yenn saa yi du tooñ. ah l'homme est loin de la perfection peut-être. mais est-ce que bu tooñee jarul li ngeen di yeddee Macky ngeen yeddee ko. wax ma benn yoon fu mu tooñ ma wax la. non non ñoo ma fi di juger ay tooñam mais y a des faits maanaam défier autorité. comme nan luy défier gatsa gatsa. noo tuddee défier autorité. loolu maanaam bu ñu ko woowee ci yoon mu ne bu ko maanaam day dem selon moom nu mu bëggee bu ko neexee dem bu ko neexee bañ a dem mm. alors que il faut que force reste à la loi. yoon boobu noonu ngay wax. Mm. moo ko bëggoon a joli këram tam nekk député à l'Assemblée nationale. yoon bi ngay wax yoon waaw ki a sàmm yoon. Mm. ki nga xam ne il agit au no de la loi. moom moo waroon bëgg a jëli son ko këram ba mu am ay émeute bañ xaañ ci agent BIP boo xamante ni dañ ne dañ koy jëli ci te pourtant dafa am immunité parlementaire am ban yoon nga may wax. ban yoon nga may wax ausman Ousmane ko depuis plus de huit plaintes huit plaintes ci ay nit. benn amu ci suite waaye moom bu ko mbóot plante mais loolu c'est des analyses pour yow moo waral loolu. bu ko mbóot plantee ñu ne ko kaay ñu coob la. lan léegi loolu c'est des faits léegi ban sénégalais mooy nekk Sénégal di seetaan ñuy bundu xatal sa meew sénégalais comme noonu nga taxaw naan non man je suis neutre waaw non man sama yoon nekk si da sot complice nga te on va pas se laisser ñuy bàpp kenn si ñun di ko escanter wala di ko lor ci ci doole nguur ci doole boo xam ne c'est la population xanaa amoo ñun kenn si ñun bu ñu seetaanee ñun ñu lor la ci nguur am nañ ci responsabilité est-ce que xam nga loolu. Mhm. suñu seetaanee justice bi lor saa njoogu mii nii ñun peuple bi am nañ ci responsable xam moo tax parce que la loi ñoom il exerce la loi au nom du peuple sénégalais. Mhm. tey procureur tey bu dul woon le procureur de la république sañul fekk ne Seydina Omar Gueye dem leen jëlil ma ko. Mhm. li tax république bi ci tegu moo tax mu am dayo boobu. mooy le peuple c'est le peuple qui est souverain. Mhm. kon ñun su ñun bu ñoom bu ñu tegul yoon ñun peuple bi ñooy ñëw ne leen la souveraineté c'est nous. c' ça qu' on est en train de faire. Mm-hmm. léegi nag su fekkee dafa favorable à Ousmane Sonko mais tant pis. diggante ak Mame Mbaye Niang tant du c' des politiques c' du farce ce pays est un pays de malentendus ce pays est une farce ce pays ne mérite pas ça moins de un an des élections mais kenn mënul désigner les candidats principaux mm. les principaux candidats kenn mënulaa wax kii ak kii ak kii mooy bokk. mais ça c'est de la dictature ça loolu kenn xamul sax lu mu tudd dans l'histoire de ce pays mu ngi doog am amul sele élection de Macky Sall bi mu fi toogee ba tey sélection présidentielle mooy am. mooy tànn. sélection mooy tànn ñi ba pare bu doon sax Macky Sall dafay bafouer suñuy àq dafay bafouer suñuy liberté bu doon day tànn ñiy bokk rek présenté wu mais même ñiy voté Macky Sall moo leen di tànn. am na ñoo xam ne voté nañ 30 ans ci nguuru Macky Sall lañ bind seen candidat à ne pas am na. mais léegi di léegi injustice bi bu ko nit ñi di wax lan lii lan la wutaleeg politique. lii lan la wuteeg far kase la war a yem wala taxawaay. maanaam Macky Sall moom ci nguuram moo am kii voté Macky Sall moo ko tànn ki ñuy voteel Macky Sall moo koy tànn te loolu du démocratie. léegi nag ñun on est pour la lutte de la défense de la démocratie. dañuy fexe naka la ñuy Macky Sall ni ñu ko joxee woon réew mi su démocratie bi gënul yokk liberté bi gën a yokk mais du ko wàññi te malheureusement. ñun ñëpp dañoo sëngéem dañoo rus ngir acte yi Macky Sall di posé nga gis un ministre de l'intérieur xamala la wax ne man ci ay instruction présidentielle ci lay dox ay ndigalu présidentielle où est la souveraineté du peuple où est les lois ana texte ak règlement bi leen fa teg ñoom nga xam ne c'est le peuple te loolu moo tax tey ñu sañ di àddu ci suñu tur mais ñoom ñëpp nee nañ loolu amul solo li am solo mooy ay émotion wu sentiment ak ay président kon lépp lu xew ci réew mi mais Macky Sall la. jërëjëf euh, Kona. jërëjëf ñu bàyyi la nga tàggatoo kontaan de. merci beaucoup maa ngi maa ngi bëgg encore une fois ci fii sama kër la mm-hmm. donc euh, Sandiogou moom ak yéen ñi ñëpp bokk ngeen ci ñu ñu promouvoir muy wane ne rek Walfadjri këru dëgg la di wane ne aussi solution ñëw na tamit di def pàccam bu am solo ndax fii sama kër la nu ma neex laa fiy ñëwee te ñoom it heure bu def émission man it ci C'est TV dama leen di sant di leen di gërëm parce que bokk nañ ci ñi nga xamante ne ñooñu ñooñu gën a promouvoir mooy wane ne rek tey tax na Sénégal ñu ngi jëriñu ci ñun international di bëgg ci ñun yàlla ak ñoom ñii a ngi opportunité boobu moo tax heure bu may def émission dama leen di sant di leen di gërëm di leen sant yéen ñii ñëpp di jéggalu aussi bu dee am na lu ci jubul xëy na gàtt na li ñu bëggoon leeral yëpp matul mais li am solo rek mooy l'excellence est notre credo lu baax rek moo tax a jóg nekkul dañuy jaay wowle wala dañuy jaay ëllëwle wala dañuy jaay dëgër bopp wala ñoo insolent non mais dëgg moo mel noonu des mu arrangé kii des